Mbaye Djiné ñu lay nuyu. ñu leen di fay. tay lan ya, ya, ya, mo fi sey tank waay 100 pour way bi nga naan ma tank sama loox ak sama bop lepp lay ndalé Chéri ndey gay wa Bidio wa loolu la yàlla def barki yalla wa mais yéen nga am jamm rek wa mo la tey ñëw rek xamat and sé suñu grand frère guuy gi di ko dooleel di ko ñaanal suñu borom xam ma may ko ndam lu kawe suñu jortam si dooleel señ fallu gis na gis nañ sa combat bu mujju bi nga am si victoire bu nice. waaw waaw sant yàlla rek sant yàlla sant yàlla bu baax maa sant yàlla bu baax di sant sëñ Abdou Karim Mbacke lépp moom la maa ngi koy sant bu baax a baax ak Soxna May waaw maa leen di sant baax ñoom jàpp nañ ci combat bu baax a baax di ñaan yàlla suñu borom xam nga bii di ñëw dàq bi ñu jógee incha allah. yaa ngi amaat yeneen proposition pour combat. rek ñu ngi wax waa ñu ngi wax. yaakaar nga bëriwaat fii balaa saison. incha allah rabi bu neexee yàlla naa bëriwaat waaw.